jërëjëf mbokk ya bu ra nga leen di ziar di leen ndokkeel di leen wax déwénati ak fay mën nek xamna ni naa ngeen nek sama karama mais buur mo leen raw tay mbokk yi tay dañu and ak yeen ñew fi nga xamanteni ke moy fogg kan moñ fi ni tay di wali balago sec le chanteur du peuple. par de Bamba tay affaire bi lu sedda ah. le chanteur du peuple fay ñew da fay yëngu danañ ko xaar fi Bamba bu yexse dinañu waxtaan ak mom.

ndeysaan Bambal le golden est là <laughs> c'est te te te mais Bamba waa lu laal nii. dafay gaare. mais Bamba marque oto bi ban marque la Bamba. box box. dur la. Porsche ah. maa xam Porsche. gaa yi mu ngi noonu damay wàcc su wàccee ñu xawko ko liyal la xëcc xëccal la grand mais nag espace tuuti ah gars yi ndànk dama koy dama koy ñaan na fi yaatu nii rek kaam rek ana ñoom idi. Euh, Bamba waykat baa ngi noonu ah comme li ma doon wax sànq. Euh, dinañu jéem a def le tout pour waxtaan ak moom ah. euh, lu mu gàtt gàtt yoon lu mu lu mu gàtt gàtt ma nuyul ma sama yaay xaj na ci ah. mais mais waaye li nga sànce lan la waaye yow lan la. mais mais Waly nuyu naa la. buur maa ngi lay fay. mais le chanteur du peuple la ah. waaw maa ngi nii. mais Waly xale yu Ndakaaru nee nañu ñun Waly rek la ñuy topp man ma jàpp. Mbour ma ñor rek laay topp. <laughs> mais déwénit la ñuy wax d' abord. fekkeel déwén. Hmm. fekkeel déwén. Waly ku ne xam na ne yaa ngi am ñetti date yu majeur ah yaa ngi jëm Bercy Kër Massar mosoo fa tëgg war a demaat fa la nga xam ne moom mooy Pikine loolu derby la waaye man li ma gën a jàpp ci mbir mi. moy le 3 ku ne xam le 3 juin walé mo nga jëm dom de Paris est-ce que dispositif yi joor yëpp jël ngeen ko pour préparer ce grand jour. macha allah macha allah buur maa ngi dem keur Massar ni nga waxé ma ngi dem Pikine waaye tamit ma ngi dem parcel inshallah hein ah euh, Dom de Paris nek pare nañ ko ah. Paris mo fief la suma dëkk la suma excès Paris ñu xam ne egg si na waaw. tey après corgi hein ah. Sénégal ñëpp a jóg. quel est le problème. waaw dañ ma namante ko rek. waaw yaa am gën a xam. tu es le chargé du <laughs> man yore laay toog. man man xamaa ne man ngay toog. ngi noonu Bamba Wally Seck toujours euh, égal à lui-même. Ah, ngeen ba ñëw mais les jumeaux mais fu ngeen demoon. ah euh, suñu papa Wally moo ñu génne woon réew mi rek ñu dem ñëwaat rek loolu kasa la mooy génne waat waaw def lu neex billaahi loolu kasa la buur. tey teew foo ko ah ñu gis gars yi teel a dikk tey teel a lan la waaw dañ ko namm barke sëñ Bamba xam loo miin doo gëjee gis da koy namm daa namm mel ni Wally Seck rek moom kase amul leneen billaahi moo ñu def lu tax ñu koy top waaw waaw su ma leen laajoon tey lu leen defal bari na eh, parce saan ñu nekkoon nit ñoo xamante ne du ñu dox sax nit nañu zimoy kaa leen fotowu

ay leneen ak leneen ngay dégg léegi sax ci kanam billahi duñu waxantu barke Serigne ñun duñu gént dañuy gis billahi barke Serigne Touba léegi dañ ko gis léegi ñaar mën lañ baye sen gel sen gel yi ngeen di nangoonte ki nangu gel par gel yi mënu ñu xamé wala la wuñ de benn nañ am bokk ko nañ am nangoonte lan barke moo lu leer la la wax du ay fo du ay tiaxan ben mag mom mais Sharia reyna na non mais tamit euh, suñu papa ki wa nañu jéggal rek euh, Jamra Mame Matar Gueye ñun say seexu yàlla nañ comprendre nga lii nag dal ñu nattu la nattu la yàlla moo ñu ko teg ah, benn jabar bi nañ bàyyi rek benn jabar rek nañ gëm match bi tas Zimo doo yéegee ma yéeg xool la mit lim sañ-sañ non man vraiment man bëgg naa géwél mu xam boppam quoi <laughs> mais grâce à mi nuy naa di la wax déwénati laata maa ñëw ci la buur waay nañ fekkee déwén waay baal ma àq baal naa la di baal di profité ci occasion bi di baalu senegal gépp ak di leen baal ak di ñaan yàlla yërëm suñu woy dawlu yi xaral leen àjjana ñi fi des di ay borom kër yàlla na leen ba yàlla fi bàyyi ñu ut seen njaboot ba xale yi màgg ñu gunge xale yi di ñaan yàlla ndaw ñi fi ne yàlla na ñu màgg doon ay mag yu am diine am lislaam ci barke Serigne Saliou. Samy Thioune toujours euh, ku ne xam na ni. ci loyauté la ànd ak Wally Ballago Seck ginnaaw bi mu ànd ak Thione ci carrière ma mais dañuy gis ci moom toujours loyauté quoi mais teewul dara ñaawul aussi. waaw xam nga olof Ndiaye nee na lu rey mbuum dee ca te ku juddoo ci tàgg boo naawul jaaxal say bokk loyauté moom ci doomu géwél mën naa ne ndax ci la ñu judd ci la ñu yaru ci la ñu màgg xam nga tey nga judd ci kër. sa yaay nekk ak ay nawleem ci biir kër gi sa papa am ñeenti soxna ba ñett walla ñett wala ñaar jarbaat yi bari ci kër gi cousin yi ñëpp sa yaay aye yàq bool teg amul xaaj ak seen ñëpp raxasu góor gi du am sax fu mu sukk kooku xam nga boo demee boo juddoo ci loolu yaroo ci loolu màggee ci loolu faaw nga loyal faaw tey ku ne xam na ni Bercy Pikine baa ngi wàcc Bercy Kër Massar di date bo xamné Kër Massar ku né xamné ni walé mosu teug wayé événement bi ñëpp di xaar moy le 3 juin Dôme de Paris ak walé Ballago Seck est-ce que nekkul un défi majeur ah. non du un défi parce que défi moy faut mënu faut mësul dem nga défier ne dina fa dem mais Dôme de Paris mom dañ koy dama jël toujours le nom Dôme euh, qualifié ko en wolof te bo xolé Dôme en wolof moy cendre. dóomu tal dóom de Paris min nañ sal ba xam nañ ko danañ ko def comme dóom dara du yomb inshallah allah la gëna xam lolu sax bu doon nit la dina xam ni bu ko ramdan rofo moy raw and and maire yoy nga xam ni sa mam and bi mu daan tek ci negam nga xam ni day jël sa tale weñ gi tek ci mu jëm fajar bu boyew man ci japp dóom de Paris dina xam ni lepp deug la di wax nag ne la di profiter ci occasion bi euh, Bercy Pikine bi nga wax keur Massar loolu dër bi la dër bi laa ko tudde waaw dër bi laa ko tuddee muy euh, pikin kenn musul dem ñu des te masaar ak Pikine benn la ñu te xam naa ni ñoom ñaar kenn du ko bàyyi sa morom incha allah yàlla nañ ci incha allah grand Séméthione Lamine maa ngi lay nuyu. buur maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di la. siyaar di la wax déwén xanaa bi moom boo ko simee mën nga waaw bi yow laa koy jox yaay sama frère. bu ne xam na ni Lamine Nar fait partie l'un des

di ñaanal sama yaay ajaratu nday mari njaay gawlo suñu borom xaare ko àjjanay firdawsi di ko wax daal manqué na ma maa ngi koy ñaanal yàlla suufu Touba ci di ziar ñëpp di bëggee ñëpp waaw xam nga Lamine boo juddoo ci askanu ngéwal nga judd ci famille boo xam ni daanaka ñëpp ay musiciens lañ yow après boo ñëwee euh, foo mënti dem ci àdduna rek da ngay bokk ndax ñun li allah dañ ko tarbiyu dañ ko mu nekk ci ñun nekk suñu deret ndax buñ ne Ndeye mari Ndiaye Gawlo mooy sa yaay Maysa Ndiaye Gawlo mooy sa maam nga judd ci famille boo xam ni ñëpp ay tëggkat lan nii ay woykat lan kon foo mënti dem ci àddina rek xam nga bu njëkk musique gu démb nit ñi dañ ko fàtte te xam nga Tumba dafa bokk ci musique balaa sabar di am Tumba moo am ak ay tembaal ak tama léegi nit ñi dañ ko fàtte woon mais tey sant naa yàlla ndax man bi may tëgg Tumba Mbaye Dieye Faye laa doon xool mooy sama référence yi ma koy ba yalla def nak ma inspiré wu ne pourquoi pas mënu ma la Tumba indi ko ci musique tay pour ñu ñu xamul won lan moy Tumba. ñu xamul sargal jigen la la ñëk gis euh, bi wali ñëk def grand théâtre nga teg ko mais jour boobu j'étais tellement impressionné parce que depuis les années soixante dix gisatuma kuy tëggu Tumba. waaw parce que oreille musicale dafa bax ci musicien wali première fois bi ko njëkkee gis makoy koy ci si la ni ma gaaw la ma ne ko ah, mënuma lii bu mu ci musique bi. dee ko ci indi ñu sant yàlla tey ba tey Sénégal tey ñëpp indiwaat nañ Tumba teg di jouer grâce à Lamine Nar. anuy ah, mais fay naa la. mais laa ñaar déwénati. mais fekkee déwén mon très cher buur. mais ñaar yëf yi teel na xat xam. waaw xam nga nag le golden boy de la musique sénégalaise moo xew la ñu naan ko Wally Ballago Seck Sidy Sokhna Aidara Baye Ndella Baye Momi Baye Mouhamad Bayu Bayu xale yi ndeysaan nit ku baax kenn du moom daal yaayu Salimata Gaye Njoro

mu ngi def la ca war daal ñi nag mooy Amélia Amélia les les jumelles Amélia Amélia maa ngi leen di béggee. yaay maa ngi sa ginnaaw rek. au delà de l'actualité rek. Dakaractu doy foo doy caaxaan daal. man la ngay topp ca kaw ca kanam yow rek laay topp.